wa sallallahu wa sallama ala nabiyihi alkarim maulana muhammadin wa ala alihi wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi nuyu bokki jullit yi ñuy teewlu yëpp ak dinu seetaan fu ñu mën a nekk di nuyu bokki taalibe yëpp di leen siyaare bu baax waaye di leen ndokkeel itam ci weeru tedd wi nga xam ne moom lañu tàbbi muy weeru gàmm di weeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital ci sunum nuyoo ak sunum ndokkeel Maulana Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu boroom mu yàgg fi lool te mu ànd ko wér mm-hmm. di nuyu bokki jullit yépp neen ko xamee ñu fa yéene ànd ak yéen kuréel gii nga xam ne mooy kuréelu liggéeyal ku tedd gi te ñu gën koo miin ci rabien Safar muy kuréel goo xam ne yitteem yëpp ak yëngatoom yëpp mi ngi jëm ci tisaare njàngaleem sëriñ bi yaatal ko ak weeral ko ak leeral ko ak yeggale ko fi mu war a yegg ñu baaxoo ànd ak yéen ci bu màggal gi jub jubsee ci ay jataay xam-xam yoo xam ne fàttali njàngaleem sëriñ bi ak lépp lu ay ci màggal gi ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee la ca war noonu itam lañ ko baaxoo def itam bu weeru tedd wi duggee muy weeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kuréel gi di kuréel liggéey ku tedd gi baaxoo ànd ak yéen ci ay waxtaan yoo xam ne dañ koy waajale gàmmu gi ngir waajale ko bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñuy séenu suñu kanam ñu fas yéene ci ànd ak yéen ci ay waxtaan yu fasantikoo ak ay warami xam-xam yu fasantikoo te ji itam ñu fas yéene ànd ak sëriñ Ibrahima Kebe di borom xam-xam bu mag di ab gëstukat di ab jàngalekat itam boo xam ne itam yëpp mu ngi jëm ci xam-xam bokk ci ndaw ñi nga xam ne dañuy liggéeyal sëriñ bi ci fànnu xam-xam ci dëkkam bi ak lu génn biir dëkk bi doon itam ku jàmbaare koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi topp jotaay yi amee ci biir dëkk bi ak lépp lu jëm ci njàngalem Serigne Touba ci jotaay yi koy amal wala ci xam-xam rek ci dëkk bi di nga ko ràññee bu baax a baax ci taxawaayam ak pas-pasam bëgg lu baaxam ak bëgg xam ñu tànn ko tey nag mu bokk itam ci biir kuréel gi nga xam ne mooy kuréel liggéey ku tedd gi fas yéene ànd ak moom waxtaan wa am solo woo xam day jëm ci waajtaayu ni ñu ko waxee léegi thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane mooy ganek euh, jamono gu yonente bi sallallahu alayhi wa ci biir mbindum sëriñ Tuubaa ku nekk xam na ne sëriñ bi weeru gàmmu mooy weer yi nga xam ne bokk na ci weer yi mu gën a fonk wax na ko fu baree bari loolu nag mi ngi dugg ci biir bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne lépp lu jokk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koy fonkaale ngir yonente bi sallallahu alayhi wa waajal gi nga xam ne moom la kuréel gii di waajal gàmm gi ngir ànd ci yéen ay jataay itam lépp dafa dellu ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jaare ko nag ci biir njàngalem Sëriñ Tuubaa moo tax tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci wax ci thème bu am solo boobu mooy ganek àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir njàngalem sëriñ bi kon bala ñoo dikk ci waxtaan wi dañuy jox sëñ Ibrahima Kebe mu nuyook yéen ñu doog a ñëw ci tomb bu njëkk bi incha allah kon sëñ Ibrahima ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax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 ci fii ci seen bi seenu Muxaddamatul Xidma ci noonu ñu ngi ziar bu baax eh, ñi nga xam ne ñooñu lañ àndal jataay bi di ci jiite Sëriñ Xalil mi nga xam ne moom lañ seqal eh, waxtaan wi niki noonu mbooleem mbokk yi nga xam ne teew nañ eh, teewal fi kuréel ngir liggéeyal ku tedd ci niki noonu ñi nga xam ne ñoo nekk ci technique bi ba nga xam ne waxtaan wi mën a jàll ci ci anam gi mu gëne ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di amaan mbégte bu baax euh, ñëwaat fii parce que yéene euh, jëriñante wala seq aw waxtaan woo xam ne euh, day nekk laay biirante ak fàttalante rek dara ci dundu gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fas yéene koo jaare nag ci mbindum suñ Tuubaa comme ni ko suñ Xalil waxee rek mhm. jërëjëf suñu Ibrahima kon xam ngeen ne kuréel gii di liggéeyal ku tedd gi yëngu yi muy yëngu yëpp jëmee ko ci njàngalem sëriñ bi ak tisaare ko da koy ànd ak waa daayira mu xaddamatul xidma nga xam ne lépp lu ñuy yëngu rek ci wàllu xam-xam jotaay ñoo koy ànd ndax ñoo bokk ab liggéey ku nekk xam ne daayira mu xaddamatul xidma téem yëpp mooy yaatal njàngalem sëriñ Tuubaa yeggale ko fa mu war a yegg moo tax itam kuréel gi itam lépp loo xam ne mi ngi koy def ci ay mu baax ko ànd ak moom di ko lëkkaloo moom ci lëkkaloo ba gën a rafet kon ñoom itam ñoo ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay di ñaan lépp sëriñ bi nangu ko kon sëñ Ibrahima ñoo ngi lay sant bu baax ci nuyoo bu tedd boobu xam naa bu ñu bëggee dugg ci waxtaan wi dañuy lay laaj tuuti rek ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa la ñuy waxtaane lu aju ci ak dana baax tuuti ñu xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa du doon loo xam ne sax da nga ci guddal waaye dana baax ñi ñuy topp ginnaaw li ñuy waxtaan dafa aju ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam tuuti aslëf kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jërëjëf sëñ Xalil ci tomb boobu nga tàmbalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko doon xam dem dañuy wax mu ne moom mooy mu xam Abdullahi mooy doomi Abdullahi comme nit ku nekk mun a ñàkk am ñaari waajur yu ko meññi uh-huh. ñaari waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ka ca jiitu mooy Muhammad Abdullahi ibnu Abdul Muttalib uh-huh. mu jigéen di uh-huh. Amina bintu Wahbin ñaar ñooñu ñoo ko seq moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, aw askanam di askan wu tedd woo xam ne ay kilifa yu màgg ñoo ci nekk euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day tànneef boo xam suñu borom da ko tànn di ko tànn di ko tànn ba seppi ko ci askan wu tedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ana xiyaaru min xiyaari min xiyaar euh, yonent bi sallallahu alayhi nag aw askanam borom xam-xam wax nañ ne am na ci loo xam ne jaadu na nit ñëpp mokkal ko te mooy di tàmbale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca àddina te loolu bu ñu ko doon tudd mooy Muhammad ibnu Abdillahi ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdu Manaf ibnu Qusay ibnu Kilaab ibnu Murra ibnu Kaab ibnu Luay ibnu Gaalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinaana ibnu Xuzayma ibnu Mudrika ibnu Ilyaas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Maad ibnu Adnaan diggante boobu borom xam-xam wax nañ ne jaadu na ci nit ku nekk mu xam ko bu baax bu ko defee li weesu loolu nag jëm ca kaw foofu kenn gëstuloo ko nit ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bu leen mu weesu la àdduna mm-hmm. ndax askan wi day dañ koy xaajale ñetti xaaj mm-hmm. xaaj boo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ne noonu la demee te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi te mm-hmm. xaajum ñaareel bi mooy li commencé ci yonent bi ñëpp dëppoo nañ ci ne sëtu Ismaayil yonente yàlla Ismaayil la ci diggante yàlla Ismaayil ni ko noonu diggante boobu dañ ci wuute waaye li nga xam ne moom lañ tudd te mooy diggante yonent bi ko càq àddinaan muy ñaar fukki maam yooyu diggante boobu moo noonu la demee mm-hmm. te loolu mooy askanam ci wàllu waajuram bu góor mm-hmm. waajuram bu jigéen di Amina mm-hmm. euh, moom mi ngi nekk mi ngi tudd Amina bintu Wahbin ibnu Abdu Manaaf ibnu Zuhra ibnu Kilaab xam ne euh, moom it askanam ci wàllu yaayam day dajeeg askanam ci wàllu baayam ndax booy tudd maam yi yonent ci wàllu baay da nga tudd Kilaab di ko noonu booy tudd ay ay maam ci wàllu yaayam da nga ñëwaat ba ci kilaab moom xam ne dañu dajewaat foofu di ko noonu amina moom mu yaay yaay yëntu saasam yaayaatam di barra di ko noonu booy tuddaat askanam da ngay dem ba ca yëntu ndax moom mi ngi tudd barra bintu abdul uzza ibnu abdiddar ibnu osman ibnu xusay noonu nga koy topp barrati min abd noonu nga koy topp di ko noonu it booy toppaat même barra moom mu ko jur waajur mu jigéen booy toppaat ma ay ay ummu habib bintu asad yi noonu nga koy toppewaat ba ca ibnu abdul osa ibnu hmm. nga xam ne ci ñeenti côté yi day demaat ba ca hmm. benn benn jokk bi dem ba ca hmm. euh, loolu mooy li nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko bu ko defee mi ngi gane màkk loolu ñëpp dëpp nañ ci ni ko it bu dee date bi mu gane adduna li ci borom xam-xam yi siira wax ne mi ngi doon fukki fan ak ñaar ci rabiul awal mooy weer wi ñu dugg donte ñeneen wax nañ waaye li ëpp li nga xam ne moo gën a euh, siiw. Hmm. moom la wax te loolu mooy li nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa saxal. Hmm. ndax sëñ wax na ne wasali lil mawlidu laylata yabi hmm. karamatan wasaana ni an riyabi yàlla suñ borom defal na ma ci bisub mawlid bi te mooy bisub fukk ak ñaar ay karama yàlla na ma ci ay sikk li nga xam ne moom la suñ bi saxal te fukk ñaar te li ëpp li nga xam ne moom la borom xam-xam yi siire yi wax kon mën na si na jàpp ci ne loolu mooy li gën a wér ci euh, bi mu gënee àdduna it. Mhm. Euh, gën mhm. kon day mel ne tuddal nga ñu euh, li nga xam ne moo ayu ci aw askanam. Mhm. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy lu am solo loo xam ne ni ko waxee nit ku nekk day am ñaari waajur. te liñ ci mën a jàpp ci lu gàtt rek mooy aw askanam buñ ko limee ba mu ci xadd naan loolu mooy ay maamam yi nga xam ne ñooy ñooy maam yi ñu mu taftaloo noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na buñ koy lim ne ñeem foofu. mel ne loolu itam day mel ne dafa day day dëxañaale ne li tax bi sallallahu alayhi wa wax loolu. ñeenti maamam yëpp boo ko xoolee day jëmaat ci àdduna mhm. moom day mel na kon loolu mooy ñooñu ay maamam mhm. muy koo xam ne itam bu buñ ko toppee sayidina ismail alayhi salaam mooy maamam ba ci sayidina ibrahim mhm. euh, nga jikk itam ci euh, waajur mu jigéen itam noonu waaye buñ ñëwee itam ci taarix bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àdduna muy gàmmu gi nga xam ne moom la ñuy dëgmal donte taarix bi borom xam-xam yu bëree bari wuute nañ ci ban bis la ak ci date bi nga ne ci borom xam-xam yi ñu ngi jàpp fukki fan ak ñaar waaye day mel ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna tam am na ay xawaarix ma ay kiimaan yu bëree bëri yoo xam ne feeñ na ci gën ak yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw gën a àdduna na ak ay xew-xew yu ñu wax xew-xew yu xotti baax ñu di ko tudde irhasaat irhasaat bi wax dañoo xam ne mooy xotti baax jiitu ak yonent moo xam bu dee yonent bi nag da ci am yoo xam ne dafa feeñ dafa feeñ bi muy gën a àdduna am yoo xam ne dafa continuer feeñ ba ba muy doon yonent mhm. yi nga xam ne feeñ na bi mu gën a àdduna buñ ko doon tudd mën nañ cee mën nañ koo jaar comme ni ko suñ suñ tubaab tuddee ci mhm. jasbul xulub dina xawat xawaariqa bada ani ruwaati sabatat te mis di naarin uxfiat ma xam ne ba mu mhm. nga xam ne eh, bëri na ci yoo xam ne dañ koy tudd par benn benn mu dajaloo ci téere yi siire yi nga xam ne léeg ñu tudd fii léeg ñu tudd fee de suñ na ko ci jës bu tudd loolu yi nga xam ne xew na yi nga xam ne yéen bi saa sam gën a àdduna bi day wax ci jës bu daan daan ne wa ayni saawata wa ayni saawata allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suyirat kan adami bokk na ci xew-xew yooyu xew ci gën ak àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am bëtu ndox bu ñu daan wax Euh, ndax bu xayru saawa moo xam ne bëtu ndox la boo xam ne musta ngiis mhm. waaye dañoo xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àdduna dafa dafa dafa ngiis nga xam ne amatu ndox mhm. ni ki bokk na ci mhm. euh, xew-xew yi xew comme ni ko sëñ bi tuddee wa kan xidaadi shuhubi xardan li ahli riya bi an samhi axbaari nabi wa rajaw bi xam ne bokk na ci yi xew ba tey mooy junne yi nga xam ne dañ daan dem ba ca asamaan sa di déglu xibaar di suñu borom di wax ak malaaka yi hmm. di ñëw di ko joxewaat ci nit ñi hmm. dañoo xam ne bi bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àdduna hmm. dañ ne dañoo sécurité asamaan si ba nga xam ne junne mënut a yéeg di jël xibaar wax nañu tey na comme ni ko suñ bi waxee ah, ok comme ni ko ni ko alxuraan euh, noonu bokk na ci yi nga xam ne xew na ba tey mooy suñ bi wax ne sataha sataha xiina wulida xayru nabiyin xad bada salla alayhi man gada fuaadu bi xikami bokk na ci ba tey xew-xew yi xew mooy eh, yonent bi saasam bi mu gënee àdduna dafa am leer gu ànd moom uh-huh. gu goo xam ne dem na ba egg sax ci eh, njënnay saam yi wax nañ ne doon na leer ci guddi googu uh-huh. na ci ba tey eh, nekki noonu pays Kisra ba nga xam ne wax nañ ne bi nga xam ne yonent bi saasam gën na àdduna fukki terrasse a ñeent nga xam ne dafa nekkoon ay ay ay ay ay ay ay ay tabax yu kawe mhm. ay wax ne bi nga guddi nga xam ne yonent bi saa mu gane àdduna da caa màbb mhm. sëñ bi sax dafa ne xatta sariirun kasara dafa dem ba mhm. lal bi nga xam ne buur bi ci la daan toog sax dafa dafa toj ngir ngir yëpp li ajli hawli niqtara ngir am tiit mu xew te xewee ci sababu gën a àdduna yonent bi saa nga xam ne yooyu yëpp gën a àdduna dafa ñëw àndawaaleeg nërmeel ak neen ni ki noonu it euh, euh, bëri na ay xew-xew yoo xam ne xew na ci am na ci yoo xam ne euh, comme li waxaat ne laylatu mawlidi nabi laylatu maxwi riya bi laylatu maxwi temps bi wa tuhrisi taasub ni ki guddi di nga gane àdduna ba guddi la goo xam ne suñ borom da cee dindiwaale sikk ci kaw suuf suñ borom da cee laabalaale suuf suñu borom da cee dindiwaale ay coono suñu borom da cee xetaliwaale doomu aadama muy ay xew-xew yu bari yoo xam ne xew na ci guddi yonent bi saa loolu lépp li mu doon tegtale mooy hmm. kii gane àdduna tey kat nit ku màgg hmm. am na mbir mu nar a andi ëllëg hmm. jërëjëf ne muy lu am solo loo xam ne ci ganek eh, ganek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono xew yi nga xam ne am na ci rahasaat yeeg yi nga xam ne sax na ci ba ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne tënkal nga ñëw ci li nga xam ne moom la sëriñ bi indi ci jës bul xulub te sëriñ bi indee ko noo xam ne itam indi ko toftaloo la hmm. boo xam ne koo beral ak pàcc bu yaatu ci biir jës bu donte borom téere yi siiré yi baaxoo nañ ko indi di ko di ko coqat di ko indi ci ay diggante waaye ni ko sëriñ bi indee nga xam da koo toftale hmm. indi yenn yi nga xam ne xew na ca hmm. te nga lim ko noonu ci iwaanu Kisra ak ci aynu saawata ak yi nga xam ne moom nga ci toftaloon muy yoo xam ne feeñ na ci ci gën ak juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wane ne kii bëgg a ñëw moo tax mu war a nekk maax wi ree bi ak max wi taxa bi a toxrisi taazumi ndax moo tax mu ànd ak kiintaan yooyu nga xam ne moom la àndal mm-hmm. kon mel na ne ñaari tomb yooyu nga tàmbalee ci gën a muy muy yonent bi sallallahu ak askanam mm-hmm. bu defee dañuy daal di ñëw nag ci jëmmi euh, gàmm ci boppam mm-hmm. ma ne ko tuddi noonu muy gàmm day mel ne borom xam-xam yu bëree bari wala bokk ñu bëree bari dañuy jàpp ne bidaa la loo xam ne lu ñu sos la loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa daa daaw ko def saxaaba yi daawuñ ko def kon laaj bi mooy maanaam fan lañ mën a sukkandiku ba ba ba ba yoonal gàmm ne lu ñu war a def la. bu defee bu dee gàmm kon. Mm-hmm. ni nga ko waxee buñ bëggee utal ko cëslaay bi di sax di tegtal ak yoon ak yoonal. Mm-hmm. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ci dellu. Mm-hmm. waaye lu jiitu loolu bu ñëwee ci alxuraan suñu borom day wax day wax ci alxuraan ci suuratu Ibrahima day wax. Euh, wa zakkirhum bi ayyaamillah uh-huh. nga fàttali sama jaan yi bisi yàlla yi uh-huh. euh, bu ñu demee ci tafsir yi yu wuutee ñu uh-huh. gis ne vraiment dañoo xam ne ayyaamullaahi bëri na nuñ ko fire waaye nag ci biir firin yooyu da ci dégg ñu ne bokk na ci bis yi nga xamee ni ci la gaa yu baax yi feeñ am na ñoo xam ne sax dañoo firé amul ni'amullaahi xéwale suñu borom te amul xéwal bu gën a màgg ci mbindeef yi xéwal bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Euh, loolu ma aaya la boo xam ne am na ci borom xam-xam yu ko yu ko yu koy tudd ne ma na ci déggee ne yoonal mooy day yoonal gàmm mm-hmm. bu ñëwee ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ne imaam ahmad solo na ko ni ko noonu imaam muslim ak euh, ñeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan faral mm-hmm. ko laajee lan moo tax nga di ko woor mu ne bis la boo xam ne ci laa gën a àdduna mm-hmm. kon loolu it tegtal na ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa bis bi nga xam ne daana ci ci gën a ni ci yoon na di ko màggal te ni ko daan màggale mooy ak jaamu yàlla. Hmm. kon loolu ba tey eh, mënees na ko ci dégg. Hmm. bu ñu ñëwaatee topp histoire eh, l'islam. Hmm. ba nga xam ne dañu di ko màggal di ko di ko màggal kenn ku ne na nga koy màggale bu ñëw ba ci jamono suñu bi. maanaam surtout waa wax ne ah eetu mawlid annabi min asashi. man xaaral di faw xam ne dundal naa. gën a àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko nag ci asasi kon loolu lépp firnde la ci ne eh, am na ki nga xam ne day day day day dundal guddi gi am na fu dëgër fu mën a sukkandiku ndax aay boobu wax naa ko déggin boo xam ne ni ki noonu xadis boobu nga xam ne boo ma xam ne sukkandiku ni ki noonu it jëfi gaa yu baax yi nga xam ne ku ci mel ne ci xam-xam nit raw ko surtout ko ci mm. ndax da ngay gis lu ci ëpp ci ay jëfam day day wane ak sàmm nga comme ci misaal sunna du def mukk luy wuteeg sunna ndax ci benn ci dénkaane bi rek ñu wax ñu wax wala takun mustahmilan illa bima yuwafiqu sunnata mimma ulima waalam bi anna kulla fi'lin yaqa'u bi xulfi sunnatin fa laysa yanfa'u hmm. lépp looy jëf na nga fexe ba bu mu wuteeg sunna hmm. ndax na nga xam ne jëpp jëf bi doomu aadama di def te mu wuteeg sunna mënu koo jëriñ hmm. ku mel noonu tey jii bu ñu gisee mu am taxawaay dundal gan ñi nga xam ne dañuy topp ci ñoom te doyloo ko mën hmm. am solo ndax day tomb bu am am solo boo xam ne bu ñu tollee ci jamono ji ñu bëree bari dañ ci indi ay ay xalaat yoo xam ne ak i déggin ba am ñoo xam ne dañu wane ne gàmmu kenn waru koo def ndax biddaa la ñi nga xam ne ci yenn déggin waaye bu ñu la déggee ci cëslaay yi nga xam ne moom nga ko indil ci alxuraan mooy wa zakkiruhum bi ayaamillaahi te lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ñooy ahlu tafsir ñu tekkee ko wala am ci yoo xam ne waaye nañ ne mënees na koo jàppe ci bis yi nga xam ne moom la ci yenn gaa yu baax yi feeñ donte am na ay déggin yu baree bari waaye bu ñëwee itam ci cëslaayul xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam day mel ne daana ko màggalal boppam ndax woor gam ci daan woor bañ ko laajee lu tax day wane ne ci la ci la gën a jamono mm-hmm. loolu itam di euh, cëslaay loo xam ne dara mën a ko gën a dëgër ci ndax cëslaay li jiitu ci ab jullit mooy alxuraan ak hadis te buñ ko seetee ci alxuraan donte dégg ni mën naa wuute waaye bu ñëwee ci hadis moom dégg ni benn lay doon mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam dafa màggal bis bi nga xam ne a jamono doo dellu nag ci borom xam-xam ci nan lañ lan mooy biddaa biddaa hasana ak nan lañ dégg biddaa soo delluwaatee ci foofu da nga xam ne mboolem li nga xam ne mooy gàmm ak lañ cey def amu ci dara loo xam ne lu génn lu lislaam santaane la te mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne lislaam da koo santaane te tënku ko ci waxtu wuñ ko war a def maanaam itlaax la ci jullit bi jamono ju nekk sañ na ko sa sàkkal bis li nga xam ne jullit bi sañ naa sàkk bis bi nga xam ne ci lay def nangam lu baax léegi man de ajuma jot danaa woor wala alxamis jot danaa woor loolu am na ay cëslaay ci saxaaba yi nga xam ne defoon nañ sàkk mel ne euh, Abdullah ibnu Mas'ud sàkkoon na ne moom bis alxamis rek lay jàngale kon day wane ne gàmmu lu am cëslaay la ci diine mooy fàttaliku jamono guddi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ ci am njàngaleem mooy fàttaliku dund gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne moom la ñu suñu boobam rayloo te loolu mooy wakullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbite bihi fu'aadaka ginnaaw moom moo ci mën a jëri jële lu mel noonu rawatina moom mi nga xam ne mooy ngën jimi def gën rafet ñëpp ay jikko kon fàttaliku ak dundam lim ñu mën a jariñ jar na daje ngir fàttaliku muy tom boo am solo kon euh, dañuy ñëw ci buñ xamee ne sëriñ bi wax nga ko léegi ne ñi nga xamante ni moom la wax ne moom la njëkk a màggal gàmmu loolu itam day cëslaay mooy ndax ni nga ko waxee léegi ku mel ne sëriñ bi day dalil ci euh, mën na mën naa sax dalil bu képp koo xam ne lislaam rek ko ñor mhm. mën naa nekk dalil ci moom waaye dalil la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko topp ndax koo xam ne léegi ni nga ko waxee ci ni nga xamante noonu la fonk lislaam ak ni mu doon xencoo sunna mhm. ak ni mu bañee biddaa ak lu lu dëppwut ak sunna ci am njàngaleem ci ay jëfam ci ay yarinam da nga xam ne lépp lu muy def da koy teg ci fu wér a wér foo xam ne borom xam-xam bi dañ koy dañ koy war rek Euh, kon day mel ne taarix bi nga xam ne moom la njëkk magal gàmmu dikk nga ci léegi muy mm. muy ni mu ko waxee ci ahyaytu mawlida nabi min asasi mm. te day mel ne loolu mooy ginnaaw bi nga xamee ne waajuram bàyyi ko na fi loolu li muy tekki rek mooy boobu la ko njëkk a dund ci kilifteefam mm. day mel loolu lay tekki ndax day mel ne ginnaaw daa amoon kilifa goo xam ne moo fi nekkoon mu ànd ko moom di ko dund njëkk gi mu ko njëkk a jiital boppam day mel ne mooy ginnaaw bi nga xamee ne moom la fi waaj loolu itam du tekkiwaat leneen ci teel gum teel a tàmbalee màggal guddi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye maanaam yittewoo gi ko sëriñ bi yittewoo woon mhm. maanaam gëdd ni mu joxoon yitte gàmm mhm. ak gëdd gi mu ko joxoon ak fonk gi mu ko fonkoon loolu laa bëggoon nga leeral ñu ci dugg waaw bu dee yittewoo gi mhm. mën naa feeñ ci euh, ni mu ko teelee dundal comme ni mu ko waxee bi mu amee kii teefu ndax bu ne dundal na gàmm bi commencé ko dundal assasin loolu tegtaliwul ne jamono jooju la ko commencé dundal ndax miin googu dañ koy jàppe bayaan yi rek luy leeral ñun assasin nga xam ne lu jiitu comme ni ko sëñ Basiir waxee jamono ji fi waajur waajuram nekkee amutoon moom iraada mm-hmm. da daan jug da daan jug ci jugu waajuram daan toog ci toog ni waajuram mm-hmm. bi fi waajuram jugee nag moom léegi mm-hmm. nag at ma ca topp ci la ko commencé dundal ci kilifteefu boppam comme ni ko waxee waaye kuy liir mbindum sëñ bi day gis ne sëñ Tuubaa ku fonk gàmm la fonk goo xam ne jégg na dayoo waxuma rek buñ ñëwee ci wala ñu ñëw yi nga xam ne da ko taalif jagleel ko ñu gàmm waaye soññee gi te soññee ci am mbir la muy wane mooy lii loolu yitteel la bu demee ci borom xam sax bu ñu lay fiir li yonent so fonk dëgg-dëgg mooy dañ naan loolu loo xam ne soññee na ci def ko wane ko suñu tubaab def na yooyu yëpp bu dee gàmm def na ko soññee na ci buñ ñëwee ci lu mel ne gis bu dañuy gis sëñ bi di tudd gàmm ak la ca nekk ci njariñ ndax soññee dafa am ay ay anam yu bëri ba ci jiitu mooy mën nga wax nit ki jugal defi nangam bu ba des mooy mën ngay wax nangam kat nangama ci nekk ci tuyaaba ak jëf yu baax loolu xeetu soññee la suñu borom da koy def ci alxuraan lu bëri bu ñu demee bi dañuy gis ne bëri na ay bayit yoo xam ne da ci tudd li ci gàmm ci ay njariñ yoo xam ne euh, da ci soññ ki nga xam ne da ci soññ jullit bi nga xam ne bëgg na lu baax mu fonk gàmm lu ci mel ne yi mm, muy wax naan mu mawliduhu muazzamu mubarakun muhtaramu tanzimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bihi ziyadul minnati li muxlisin muazzimi ñu wax ne eh, bisu gën a adduna yonent saa sallam bis bu màgg la bis bu am barke la bis bu ñu warmaal la muy ñetti ñetti ñetti ñetti yu am solo yu mat a baxel ndax ñett yooyu yëpp ñëw na ci alxuraan di wane ne lu am solo la lu suñu borom bàyyi xel la ndax mawliduhu muazzamu gën a adduna yonent bi lu màgg la suñu borom wax ne wa man yu'azzim sha'a'ira allahi fa innaha min taqwal qulub daal di waxaat ne wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa xayrun la képp ku màggal yi eh, suñ li suñ borom màggal moo gën ci yow daal di waxaat ne képp ku màggal li suñ borom màggal loolu de day wane ak ragal yàlla te suñu borom waxoon na ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin man ñi may nangu seen jëf dëgg mooy ñi am ñi am ak ragal kon màggal gàmm firnde la ci ne nit ki am na taqwa ñaara bi mooy eh, wax na ne lu ñu warmaal la ta déggaan nga ko suñu borom wa man yaxzim koo xam ne màggal nga du suñu borom war ma moo gën ci yow waxaat am barke la te loolit it la koy firndeel wax am na ci yeneen béy wax ne suñ bi di wax ne barkeb gàmmkat wuyu si ni ma ci commencé ci lasasin ni mi ngi waxaat ci béy yi ba tey di soñ di wan ne njëriñ li nekk ci gàmm ak li mën a jural doomu aadama bi wax ne fa mu ne azim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasab gada wa faxtariman waazimi hmm. képp koo xam ne màggal nga gàmm te màggal ko ci nu dëppoog sunna hmm. ëllëg yomal xiyam kenn du xisab hmm. te loolu mooy li nga xam ne ñëpp moom lañ moom lañ bëgg te suñu am na ñu mu tudd ci alxuraan tudd leen ak melokaan yu màgg bam ba mu noppee dañ ñooñ kat danañ dugg àjjana te kenn du xisab eh, bu fekkee nag yow gàmm mën nga koo def ba pare jële ci njëriñu waaw kon loolu lu mat a xel ni ko noonu di wax ne fa man azim mawlida xayril baraya ahmada fala faka shahida shahida badran bi xayri wahami képp koo xam ne màggal nag bis bi mës na laa jàppe koo xam ne demoon nga ca xare ba pare faatu ci xam ne ñi nga xam ne dañoo faatu ci xare ba tey ci ci àjjana lañ jëm direct ni ko noonu wax na képp koo xam ne dundal nga ci def ci sa alal donte ab dërëm la mën nga mën na nga ne ku teew bisu badar te bis badar mooy xare badar bu gën a màgg bu njëkk xare bu njëkk donte am na xare xare yu ko jiitu waaye moom la jàpp xare bi jiitu ci lislaam mooy li ñuy tuddi almaaraka al faasila mooy xare bi nga xam ne ci la lislaam génne jële ci doole joo xam ne ñëpp ko bàyyiwaat xel nee na képp koo xam ne màgg nga guddi gi mel na nga ne ku teewoon ci xare boobu mel na nga ne ku teewoon ci euh, euh, xare xunay ba pare ànd ak góorgóorlu ak muñ ni noonu it bokk nga ci ñi daan dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xaram yooyu hmm. waxaat ne képp koo xam ne fonk nga bis boobu kat hmm. na nga xam ne tuufu nga ci àdduna ak àllaaxira te danga nga mucc ci lor hmm. te da nga saxoo ak mbégte tudd na ci daal ay ay ay ay ay ay tuyaaba yu yu bari yoo xam ne lépp rek day soññe nit ki di ko fonkloo gàmm di wan di ko ndax nit lim fonk rek lay jël di ko détaillé di tudd njëriñ ci nekk di ci xemmem loo nit ñi li ki noonu boo ñëwee ci xasida yi nga xam ne jagleel na ko gàmm mhm. nga xam ne eh, da ko tër rek ngir lool mhm. boole ci di ci wax eh, tuyaaba yi ci nekk ak di ci wax njariñ yi ko ci suñu borom defal jaare ko ci gàmm yooyu yëpp li muy wane mooy mhm. am solo gu mu am amoon solo ak bàyyi bàyyi xel gi mu ko bàyyi woon xel mu loolu lay nga xam ne yittewoo woon na ko muy lu am solo ndax soññee gi ni nga ko waxee léegi day am eh, solo mooy nit ki li nga koy soññ xamal ko njariñ yi ci nekk day tax maanaam soññe loolu lay gën yomb ci moom ndax bu soññe woon dee leen gàmmu des na ko def waaye lii indi xememteef gi ba nit ñi gën cee sawar mhm. mooy njëriñ yi nga xam ne am na ci biir gàmmu te sëriñ bi lim ko gis muy njëriñ yu bëree bëri nga tudd ko noonu xam naa ni ngir njëkkanteek waxtu yi euh, dañuy ñëw rek ci naka la sëriñ bi daan dundale gàmm mooy sëriñ bi gàmm ginnaaw bi nga xam ne xam nañu fonk gi mu ko fonkoon mhm. Mhm. ci jamonoom naka la daan dundale gàmm gi bu ko defee loolu moom daanaka day yomba leeral ndax hmm. bu ñu jàppee ne gàmm dundal gàmm ak jaamu yàlla ci xeet jaamu yàlla yi uh-huh. ci yi nga xam ne doomu aadama dana ko dana ko dana ci jegeñ la borom uh-huh. xam nañ ne sëñ bi uh-huh. xam na ne gépp jaamu yàlla bu wuuteeg sunna def ko noonu comme ni ñu waxee noonu léegi wax lam bi anna kulla fi'lin yaqa'u bi xulfi sunnati fa laysa jëpp joo xam ne nit mi ngi koy jëf bu wuuteeg sunna def ko jëf moo tax ca gis bu muy wax ne ta'zimuhu bi sunnati nañ koy màggal tam dëppoog sunna dëppoog sunna bu ñu ko waxee mooy na dëppoog na bañ a wuutee ak ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye foofu li ma la waxee mooy sëñ bi daawut màggal rek bis bi yem ci waaye day mel ne moom wéeru yëpp la daa màggal comme ma wax ne daani ila ixyaai da chahri kawnuhu li xayril wara warfan xawa kullu suuri mooy damay dundal weeru rabiul awal te li tax ma di ko dundal mooy nekk ci nekk weer yi xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a foofu da ci bàyyi loo xel lu am solo lu ma la waxee mooy daa xam ne weer amut ngëneel lu mën a gëne moromu yaram dañuy wax ne xam nga ngëneel ñaari xeet ngëneel la fadlul xusuusi fadlul kas bi ngëneel loo xam ne nit ki da koy fàggu ak ngëneel lu suñu borom di def ci moom euh, weer gën gi muy gën moromu weeram nekkul lu lu muy lu muy def ndax weer du jëf waaye weer gën gi muy gën moromu weeram mooy la ca xew ci ay xew-xew comme say weeru koor nekk gi nekk weer wi farataal koor ak alxuraan wàcc gëm ci wàcc ak layru xadar nekk gëm ci nekk layru xadar yi gën gëm gën bis yi guddi yi la ci nekk ni ki noonu nee na weeru weeru rabiul li tax ma di ko màggal mooy doon gim doon weeru gën a àdduna yonent bi sallallahu alayhi kon loolu it euh, lu ma tax nga xam ne kon sëñ bi da daan maggal weer wi màggal googu mu daan màggal weer yi na ko ay njëriñ yu yu bëri yu dul jeex yoo xam ne wax na ko ci xasida yu wutee wute ci mel li wax naan rafaani xubbu rabiul awwali wa ramadaana inda zil arshil wali jëmmi weeru rabiul awwal so cofeel gi ma ci am ak bëgg gi ma ko bëgg ak màggal gi ma koy màggal jëlee naa ci ak yëkkatu suñu borom ni ko noonu waxa wax na ko ci yu bëree bëri xasida yu bëree bëri yu dem na ba sax egg ci ne radiya anni radiya anni rabiul awali bi bi xayri suxtin inda dil arshil oli damaa dem ba weeru rabiul awal na ma ngir taxawaay bi ma ci am ak fonk gi ma ko fonk euh, bu dee jëfan ni mu ko daan màggale nag surtout buñ demee ba egg ci bis bi buñ liir ci téere yi dañu wax ne sëñ bi buñ masaan a dugg weeru rabiul awal ci la daan gën a yomb gise ni ko noonu nit ñi dañ daan gaaral seeni aajo ci weer woowu loolu yëpp day dugg ci xeetu màggal gi day dugg ci xeetu mbégte biñ digal jullit bi ni ko noonu bu dee buñ demee ba egg ca bis ba it te mooy bis biñ jàpp ni mooy bisu gën a àdduna te mooy bisu fukk ñaar comme ni ñu ko waxee daanañ ko dundal ci eh, jàng alquran tudd yàlla te ba ci jiitu mooy jàng alquran karim ki noonu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. ci anam googu nit ki jullee donte nag hmm. eh, daanañ ko jaarale ci xasida yi nga xam ne daana ko jàng daana moo ko taalif lu ci mel ne jës bu hmm. ndax eh, dafa làmboo yu bëri dafa làmboo eh, julli yonente bi sallallahu alayhi wa waaye dafa làmboo it leneen lu ñuy gàmm moom mooy melokaani yonente bi sallallahu alayhi wa te bëgg nañ ci ci gàmm ñi koy wax ñëpp dañ naan niñ koy defee mooy dajaloo ci jàngale ci melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu dee jës bu it dafa nekk ci xasida wu niki noonu muxaddamatul na ci xasida yi nga xam ne daana ko gàmmo niki noonu it euh, mawaahibu am na ñu ci boole ba tey euh, midaad yi nga xam ne ci noonu lañ ko daan gàmm mooy jàng alxuraan ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di bernde euh, nga xam ne wax nañ sax ci moom ci jëmmi boppam fonk gi mu fonkoon bis bi tax na moo daan jugal boppam daan séddali bernde yi hmm. ni ki noonu it daan euh, jël parfois yu am solo yi ak yi gën a gànjoor daan ko jox ñi nga xam ne hmm. ñoo daan dundal bis bi hmm. euh, nga xam ne kon noonu la bi daan gàmmoo daal ci ci ci ci anam buñ buñ anam gi dëppoo na mooy noonu la ko daan nattalee bam bam bam dëppoo eh, muy lu am am solo ci li nga xam ne noonu la sëriñ bi daan gàmmoo muy loo xam ne wane neen ak fonkel goo xam ne fonkoon na ko fonkoon na ko gàmmu ci wax nañ ñu sax ne moom ak nekkam nit ñi gàmmu lañ daan ñëw njaareem di ko fekk mhm. mooy ñi nga xam ne dañuy def màggal dañoo Tuuba mhm. nit ñi gàmm dañ daan ñëw dañ daan ñëw gàmm jeeg sëriñ bi mhm. sëriñ bi fonkoon ko lool ci anam yëpp ni nga ko wax léegi rek mooy teg ko ci tax si mu xoo bi sunnati te loolu mooy li nga xam ne làmm làmm na lépp ci gàttal äh, ñëw nga itam ci lenn li nga xam ne gàmm may na ko yonent bi salla may na ko sëriñ bi ci weeru gàmm te loolu tudd na ko ci xasida yu baree bari yoo xam ne li nga xam ne làq na ko ci biir rabiul awal Mm-hmm. waaye doon na ci sëkk rek mu ne jëmmi rabiul awal ci boppam dem na ba mujj gërëm mm-hmm. mm-hmm. moom jëmmi weer wi yëpp lay màggal li mu ci bind ci ay xasida ak am may mu jënd jëmmi weer wi ci boppam ndax ku nekk xam na ne sëriñ bi moom ci wax na ko dafa mel ne dafa dafa mujjoon suñu borom soppi jëmmi weer yi ak bis yi mel ne ay jëmm ci moom yoo xam ne dañ koy wéttali ak ne ci moom mu ne jëmmi rabiul nag mujj na gërëm ko loolu mooy bokk na ci may yi nga xam ne am na ko ci muy may yi gën a kawe waaye xam naa ne waxtu yi euh, yegg na fi ñu war a yëkkatee jotaay bi xam naa li ñu mujj rek mooy jëmmi màggal gàmm ci boppam maanaam man meññet lan la mën a jural ab jullit laa mhm. ci gàttal ci tënk rek ginnaaw xam nañ dayo bi nga xam ne moom la mhm. gàmmu am mhm. ak warteef gi màggal gi nekk gi mu nekk loo xam ne lu tegu ci euh, sariya la lu tegu ci lislaam la xam itam ne sëriñ bi ni mu ko fonke woon ak ni mu euh, fonke woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggale kon dana jaaru ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi soññi na ci wax njariñ yi ci am yëpp mooy jullit bi màggal màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ci mën a jëre ci njariñ waaw bu dee loolu moom bu ñu xamee ne gàmm ak jaamu yàlla ci xeeti jaamu yàlla yi xam nañ ne suñu borom diggée na ci jaamu yàlla yi ak pay gépp jaamu yàlla goo xam ne jaam bi def na ko def ko ci anam gi mu suñu borom digg na ko ci ak pay te suñu borom wax ne inna allaha la yudiu ajral muhsinin yàlla suñu borom du sànq mukk yoolu booy rafetal yi ni ki noonu it bépp jëf ma yaamal mithqaala zarratin xayran yara yàlla suñu képp koo xam ne jëf nga lu toll ne fépp suuf ci jëf ju baax yi ëllëg ko gis te ja gàmm dafa bokk ci eh, bis yooyu te day dafa bokk ci bis yi nga xam ne eh, dafa bëri ay tuyaaba yu ci nekk ak i yoo xam ne sëñ bi sax dem na ba egg wax ne eh, secret yi ci nekk sax dëggnut mu di ko tudd far am na ci béy di mi wax yu noonu di wax ne bis gàmm daal li ci nekk ci ay secret dëggnutul ma di ko bokk ci bis yi nga xam ne suñ borom yërmaaneem da ci wàcc te yonent bi saa sax wax ne ñaare yërmande yooyu képp koo xam ne fexe nga ba mu wàcc sa kaw texe di doola dootula dem ko ñëwee ci njariñ li mën a jural nit ki daanaka mën nañoo dellu ci bayit yi sëñ bi doon wax rek ci ci jës bu te bi mu tudd njariñ yu nekk ci gàmm tam wax ne euh, guddi gàmm guddi la goo xam ne ci la suñu borom euh, di dindee ay coono di laabale nit ki di ko muccal ci ay bakkaar wax ne képp koo xam ne màggal nga ko ci anam gu dëpp sunna mel na nga ne ku teewe woon xare Badar ci tuyaaba mel na nga ne ku teewe woon euh, xare Xunayn ci tuyaaba ni ki noonu it euh, da nga am da nga taqoo mbégte ni ki mucc ci ay lor ni ki noonu ci texe adduna ak àlaxira ni ki noonu it wax na ne képp koo xam ne euh, dundal nga ci sa alal da nga yëg ak yokkute ci sa bopp dem na ba egg sax ne fa ñuy defee fañ koy defee sax ndox mañ fa teg ñaan yi cay ñaan wala képp koo xam ne naan nga ko euh, dana leeral sab xol yunawiru al qalba alsharab min dalika al ma bil mujab wal qalba yuxyi duuna wa anshaqa nga xam ne suñu borom nee na képp koo xam ne ndox ci yàlla suñu borom dana dundal sab xol dana la muccal ci ay gàkk-gàkk dana la ci ay ayib niki noonu euh, ne euh, képp koo xam ne dundal nga bis bi te mooy bisub gàmm te dundal ko ci bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñëwee ci yonent yonent sallam day di joxe ay ay ay xemem te xemem loolu doomu aadama ci ci ci jaamu yàlla lu ci mel ne bu ñu demee ci leeru xadar nga gis ne yonent bi sallam doo xam ne képp koo xam ne dundal nga ko ci ngëm ak sàkku tuyaaba ni ko noonu gàmm képp da nga ko dundal ci ngëm ak euh, da nga ciy jëlee pay adduna ak alaxira ni ko da nga ciy yokkute te jamono joo xam ne doomu aadama mi ngi koy def di ko bàyyi xel te di ci seetlu dana gis ne jamono ju nekk di ci gis ak yokkute ndax loolu borom xam ne dañuy wax ne dafa dem ba nekk lu wér loo xam ne la làqutut maanaam koo xam ne fexe nga ba bisub gàmm yemale woo ko ak bis yi ko jiitu moo xam na nga ko màggal wala ko fexe ràññeele ko ci ay jaamu yàlla ak ci góorgóorlu dañuy wax ne da nga gis ci sa bopp yokkute ci wàllu diine waaye da gis sa bopp yokkute yow wàllu àdduna yu bëri yu bëri na ci tuyaaba yoo xam ne booy liir yeneen téere yi borom xam-xam yi nga xam ne ay mutasawifoon nañu fonk gàmm dañ ci tudd ay yu bëree bëri yoo xam ne daal dig nañ ko nit ki nga xam ne mi ngi koy def ne dana ko kon day mel ne euh, njëriñ yi nga xam ne moom lay jural julit bi bari na lool mm-hmm. te yooyu nga ci tudd muy yu am solo ndax boo koy tënk rek day mel ne njëriñal àddina ak alaaxira la mm-hmm. ndax euh, yaquuduna lil jinnati mm-hmm. ak bihis diyaadul minnati day mel ne kon njëriñal àddina ak alaaxira la boole li nga xam ne moom la ab julit di bëgg ci àddina ak li ñu bëgg àlaxira mhm. lépp demel ne mhm. màggal guddi gàmm mhm. te teg ko nag ci li muxlisin muazimi maa màggal goo xam ne mox li day ànd ak sellal te mooy rek teg ko ci njàngale mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, li muy jural ab julit bari na li muy jural ab julit bari na njëriñ ci nekk itam bari na muy lu am solo loo xam ne kon julit ñëpp war nañ koo gën a fonkaat gën koo bàyyi xel bu baax a baax xam ne màggal euh, guddi gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna muy guddi gàmm njariñ lu rëy rëy ci nekk ñeel ab julit mën naa defar lu bari ba itam ci ci nit ndax li nga wax léegi ci ne sëriñ bi daa wax ne naan ci ndox mi ndox mi mm. day leer ab dënnam mm. dindi gàkk-gàkk yi nga xam ne mooy na ci xol yokko leer loolu dëppoo ak li nga xam ne moom la borom wax ci ne koo ko fonk dana am soppi gu muy def ci sa ci mm. wàllu diine nga gën a fonk diine gën a am diine kon day mel ne ki nga xam ne yëg na ci boppam Euh, ak ak ak yàqu xol gu ne ci moom goo xam ne xëy na tënaa saafaraw mhm. fonk guddi gàmm mhm. bokk na ci li nga xam ne saafara mhm. ab xol di li ñu ay gàkk-gàkk kon suñu Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan xam naa damay jox kàddu gu mujj gi rek ñu yëkkati jotaay bi incha allah ñu ngi sant yàlla bu baax di delloo sant euh, suñ borom mi nga xam ne ñu defal tawfiq bañ mën a euh, jëmmal li ñu ko noonu sant mbokk yi nga xam ne ñoo am taxawaay bi waa Muxaddamatul Xidma li ko noonu sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo seq kuréel bi di liggéeyal ku te kuréel liggéeyal ku tedd gi nga xam ne seeni yëngu-yëngu ci xam-xam euh, ñëpp xam nañ ko euh, umpatul kenn euh, di di jaajëfal bu baax mi ñi nga xam ne teewoon nañ jataay bi ñu bokk ci kuréel gi teewoon ñi nga xam ne ñu ngi koy teewlu ci télé bii di Muxaddamatul Xidma ni ko noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow suñu xalil ci ni nga doon doxalee waxtaan am na solo macha allah. te loolu ñu ngi jaajëfal bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo doon jàllale jotaay bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci technique bi ñëpp rek leen di jaajëfal bu baax di ñaan suñu borom lépp loo xam ne nekk na tuyaaba ci liñ ci wax yàlla suñu borom boole ñu lépp loo xam ne nekk na ci sawaan yàlla suñu borom jéggal ñu wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ok jërëjëf sëñ kon mbokk jur yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel lii mooy jotaay bi njëkk bi nga xam ne moom la kuréel liggéey ku tedd gi ànd ak yéen ci tàmbali wàccaay yi nga xam ne mooy wàccaayu gàmm gi mooy jotaay bu njëkk ñu doon waxtaane ganek euh, àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbindi sëriñ bi anoon jeeg sëriñ Ibrahima Kebe mu indi ci lu am am solo donte waxtu wi sax xaw naa xat ba lu bare bare da koo tënk waaye ko nekk xam ne nag boo delloo ci téere sëriñ bi téere yi nga xam ne ay xasida yi am daan yu bare bare sëriñ bi tudd na ci yu mel noonu rawat lu mel ne jës bu jës bul xulóob ak raaya ak yu mel ne ba ci Ahmad Souleymane ak yu bare bari ci barab yi fasanti ko yoo xam ne sëriñ bi tudd na ko fa eh, li sëriñ Ibrahima indi xay na lu gàtt gàtt la lu ko ngir waxtu wi waaye waxtaan wu am solo boo xam ne ku ci jaar man ngaa yegg ci mën na laa yóbbu ubbi bu gëstu nga àgg ci dëgg-dëgg xam li nga xam ne moom la sëriñ bi indi lépp kon sëriñ Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax a baax eh, di sant tam waa Moukhaddamatoul Khidma ni ñu ko waxee léegi mooy waa MK yi ñu leen di sant bu baax ci ànd gi nga ne ñoom lañu ànd ak ànd ak kuréel liggéey ku tedd gi ci xam ne moom lay euh, nga xam ne ñooy ànd ak waa kuréel liggéey ku tedd ci yëngu yi nga ne ñoom lañuy yëngu ci leeral njàngalem sëriñ bi ci jamono ju nekk jamonoy màggal gi ak ko jiitu saa yu moom lañ ñoom lañu àndal ñu yéwén lool ci liggéey bi ànd kook ñun ndax ni ma ko waxee léegi rek ñoo bokk lu ñuy liggéey te yaatal njàngalem sëriñ bi kon Sëriñ Abdou Khadir Bousso ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko sant di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh